coobare yàlla lañ nu gëneñ xam nga delloo bàttu ci ndaa wàññiwul dara waaw am jikko am yar topp sur teewul yenu say responsabilité ndax fa rubba mahmasatin charru min attuxami te borom burdatul madih xamuloo ni gedd naa àdduna gedd naa àdduna ngir yàlla mën nga ca dem ba yàlla gedd gedd naa àdduna gedd naa àdduna mën nga ca dem ba yàlla gedd la ndax faru ba maxmasatin charrum min attuxa xamuloo ni am na xiif boo xam ni fëra ko gën doonte ñoom ñaar ñépp jàngoro lañu moo tax xàmme baax góor gi Ibrahima nu euh, dem daf doxi soxla farata piir ànd ak taalibeem ñu dox ñetti fan yu ñu lekkul naanuñu mu ne ko góor gi xam naa loo ma ne rus sa borom a tee nga ñaan waaye man maa ngee dee ñu julli ba noppi mu ñaan boromam ñu toog rekk ndabi ñam yi wër leen mu bëgg lekk mu ni ko téyal sa loxo mu ni ko lu tax mu ni ko iblis a ko indi waaye du yàlla mu ni ko lu tax mu ni ko yàlla xakim la bu nu doon may super la ñuy jox xam ne ni suur nanu waaw hmm? moo tax nag jara bàyyi xel léeg-léeg nga sikk yàlla te fekk la tax nga sikk ko ci aada la dellu te yàlla warluwul ak nun nu fo dafa warloog nun nu dund yàlla war lu wuroog nun nun nu fo mukk waaye nu dund rekk looloo tax góor gën ko bu doon yàlla benn super la koy def xam na ni suur nanu waaye bu dee seytaane mu def ko fukki bool yi reyanu benn yoon dañu tibb bu rey rey na borom waaye dund la ca bëggoon ba tax na lu mu jàngalul yonent bi ci côté boobu amul ndax côté ilmu nafs la te bëgg na yonent bi fànn yépp mu not ko waaw wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kayd alxasmi walxakami waaw ndax tribunal boo xam ne ñett fa ne kii porté plainte te mooy bakkan bi bakkan bay wax ni mi ngi mi ngi topp ci samay bëgg-bëgg lànk na bakkan bay tawat de waaw bakkan bi mooy tawat nit ki mu nekk ci moom ba porté ci moom plainte yóbbu ko ci juge ba juge ba mooy ibliis ni ko mi ngi topp ma ci samay benk ñenk iblis ni ko kon tey nga dee waa ne nit kooku bu fa fekkul procureur bu mel ni yonent bi fu mu jëm moo tax wala tuti minhuma xasman wala xakaman wa anta taarifu kayda alxasmi walxakami xamuñu loi xasm bi xamul loi حكم بخم اللوا كيد لخم تب كيد سبترفيج واه كون نك ديفاندول سي بروكيرور بي واه سوكو ديفي juróom benn junne at yi ak lëf yàlla commencé jàngal aadama muy dox jaar ci nuux jaar ci ibrahim jaar ca doomam ya ba bu muy agsi ci muhammad mu donn yooyu secret waaye teewul mu gën leen a sonn lu ne yàlla teg ko ko te yërëmu ko yoonam te yërëmu ko yoonam sayyidatuna Aïcha xam nga dañuy séddale ciru jigéen ñi ñu ni jox leen xawaa ñu ni lu mu koy doy lu mu koy doy mooy umul jinsil bashari kaw koy soxlaatul cër ñu ni nañu jox Maryam ibnata Imran ndax mooy xayri nisaa il alamin ñu ni waaw kay ñu ni nañu jox Xadija ndax mooy sayidatu ummahatil muminin ñu ni waaw kay ñu ni nañu jox Aïcha ndax mo mooy sayidatu nisaa al arab ñu ni waaw kay ñu ni nañu jox sayidatuna fatima ndax mooy sayidatu nisail ummatil muhammadiya ñu ni waaw kay moo tax seen sët ba sayidatuna nafisa Maodo tudde na ko doom dafa daan wax ni problème mu góor ak jigéen amul problème mu jikko rekk a am nee na jigéen bu amee jikko sang di sang nee na góor bu amee jikko sang di sang waaw te mooy seen sët moom lañ daan dendaleeg asmaawu bintu abu bakr te fekk moo mujj a ñëw moom ca siècle ba ca des lay soog a ñëw sayyidatuna Nafisa moom lañu suul ca Égypte waaw te booba mag ñépp moo leen forme ci moom la ñu jànge màndu ci moom la jànge xam-xam ci moom la ñu jànge tab ci moom la ñu jànge teey mag ñépp d'accord ni lu gën a yéeme yonent bi ni mu mel ci jikko ak xam-xam am xulafaaw yu day na yi mu am te ñépp nangu ni Nafisa moo ko doon waaw seetal loolu ak ni mu so yonent bi waaye ñépp d'accord nañ ci moo tax ba imam Busiri demee ca bàmmeelam mu jooy fa jooy yu metti ñu ko wëris ji صفات المصطفى وعلومه ورثت صفات المصطفى وعلومه وفضلكما لولا النبوة واحد ها؟ ها؟ mu ne ko lenn rek la la yonent bi ëppale de jibril wàcc wax ko waaye bu dul loolu ngeen kiif kiif li góor gi Atou Ndiaye daan wax kiif kiif waaw seetal jigéen moom boobu cër ñépp d'accord ci ni Aboubacar Umar Ousmane Aliou yonent baa ngi soog am ndono ci Sayyidatuna Nafis ba tax imam Busiri di ko woy ma woy bu day na bi mu woy yonent bi imam Busiri nag moo def burdatul madih tudde ko alkawaakibu durriya fi madxi xayril bariya moo woy hamziya tudde ko ummul qura fi madhi xayril wara wante mag ñépp d'accord nañ ci ni mënatul mënatul way burd xasida bu mel ni burd mënatu ko ñépp ci d'accord jéem na ko ba tàyyi mu bañ xari xam àttanatu ko ñoom ñépp la dal créateur boo gis am na lu ñuy tuddee l'œuvre de sa vie du ko mën a répéter mukk dana def lu ne waaye boobu du ko mën a répéter moo dal yàlla ci yonent bi mënatu ko répété c'est l'œuvre de son existence waaw euh, Sayyidatuna Aïcha moo ko wax euh, mësul xam yonent bi li mu séeg moom yëpp ndaw la te dafa bari xam-xam te dafa réew xamul ku yonent bi euh, ba ni mu daan def boo timistee jege mu taalal ko làmp bi euh, timis jege nag euh, néeg bi lëndëm gisul làmp bi yonent bi agsi mu seen keroog la jëkk a seetlu ni ndekki góor gi lay sëyal lu mu ci xam xaleen la mu ne ndekki góor gi la di sëyal mu ngi janoog kawaru bopp bi mi ngi janoog bokkan bi mi ngi janoog jër bi te timis la janoog làmp ba te te làmp tàkkul waaw mu xam ni du leeru màdda leeru zawhar la ca la ko waxe baytam yu yéeme yooyu la ba agsi ci xuliqta mubarraan min kulli aybin wallahi xuliqta mubarraan min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tasha seetal loolu mu ne ko dafa mel ni yàlla bi mu lay bind nag daf la invité nga ñëw mu ni la noo bëgg mel nga naan ko nii laa ko bëgge nii laa ko bëgge mu topp la ci ka annaka qad xuliqta kama tasha moo tax Maodo ni toollahi ما خفت تحنيثا على قسمي شرواه ما ضمه الأصداف من تؤمي تحنيثا على يا إلهي أن المختار في القدم والله إيه آه بيت فهو الذي تم معناه

yu boole bayti sayyidatuna aisha ak bu mawdo ak bu imam Bosri dañu way ñaari bayti yooyu mu xol mag ñi mag ñi dil xol ko mu ni leen huwa alxaybu fi shahada waaw ñaari baatam yooyu mu sànni mu jeex ah والغيب في الشهادة nee na yonent Moi, anti-matière par excellence dépêché auprès de la matière waaw te loolu am loo am mu yéen te noo mos ci mim yëbi tuuti mi ngee xaar rek dafa wax ni daaw dañu wax ni Shayba mooy Abdul Muttalib Talib ren haasum la waaw eh, haasum nag tuddul haasum mi ngi tudd amr amrul ala waaw haashim mooy firi ci arab kuy yéwénal ñam yonent bi dafa am maam mu nga xam ni moo xewal li ñuy tuddee fondation moo xewal li ñoo tuddee Restos du Cœur te feeñalu ko yàlla mi man lépp feeñalal ko ko ci suuratu Quraysh xam nga Hachim mooy kuy defar ñam ba mu jekk waaw mooy kuy defar ñam ba mu jëkk mu jox ko ku ko soxla waaye tuddul Hachim jëfam la tudd waaw nde Amr mooy turam waaw jëfam nag lañ ko mujj a tudde lu am solo la moo tax waykat ba ni amrul ala hashama tharida li qawmihi wa rijalu makkata musnituuna ijaafu waaw yàlla ne li ilaafi qurash ilaafihim rihlata alshitaai wa sayf ma ngaa laaj wàllam na yàllaa nga laaj wàllam ci añ bi fal yaabudu rabba hada al bayt alladi ataamahum xaqiqata al itaam wa amanahum xaqiqata al am yàlla dafa dañ kumpa ba kenn kenn melul ni moom moo tax boo nee dafa dañ kumpa ñépp ni ëskëy waaye boo nee nit dafa dëñ kumpa ñépp ni acca ndax kenn du ko ci fekk inna rabbaka la bil mirsad nee na maa maa nekk ci observatoire bi waaw moo tax source bi doo nangu lu dog sa diggante ak moom waaw wallaahi moom àggoon na ci lu mu am jënde ko gëléem ba gëléem a xew lu mu koy doyee fu ñam bu baax nekk dana ko fa fekk jënd ko indi jox ko ñi mënalul seen bopp ba mujj muy dem réew ak réew di dem réew ak réew di dugg ñam di ko indil ñi ko soxla dem na ci ba am ñu mu féetale ñooy jëndi cuuraay ñoo ko jëggi ba Inde di ko indi pour ñi mënul jënd cuuraay te dañoo soxla cuuraay ndax sedd nit ku yiw dafa soxla cuuraay dem na ci bëti leen jëndal li ñoo tudde alqaranful muy xorom polli eh, man xaw ma fu ñu ko jële ah alxaram ful xorom polle moo tax kenn xamul nit ñi fu ñu jële yi ñuy wax kenn xamu ko xam nga mag ñi ñoo tere woon ana koy defal yàlla ci yalwaan ndax nit ëpp na lool nit danga war a deviner soxlaam faj ko waaye bur xaar mu ne ana koy defal yàlla ndax nit ëpp na ko su ko defee dañu mujj d'accord ci ni nag ki soxla nañu ko wutal formule bu ko tuutal ñu ne ko nañ ko jox yaara balaanaam ñun ñu ni laara biraanaam kenn xamul seen biir kenn xamul kenn xamul ci lu ne génn na ci bés soo nomal xayri daf ma ni dafa yërëm xale yi ma ne ko lu tax mu ni fekkewuñu wu la neexoon ba daara di neex fekkewuñu ko mu ni loolu la leen yërëmi ma ne ko pourtant ñoom yëguñu kenn <laughs> gis nga rappeur yi ci mbedd mi mag ñi daan jiite jàkk ji yépp moom lañu woon te dañu gënoon teey waaye moom lañu woon te it seen xaqiqa jamono lañu daan wax xam nga toll woon nañu jamono kenn xalaatul sax affaire robinet yu kenn xamul li ñu xalaatoon mooy teen ku deful teen ci sa biir kër ñu yedd ndax bëgguloo euh, bokk li euh, sa njaboot yem ci sa kër foog ñu dem duyi ci teenu keneen te loolu nag ñoom bëgguñu ko bu ko defee rappeurs yi jóg ku ci mel ni góor gi Jibril Ñing ku ci mel ni góor gi amoon ba ci paan nga xam ni dañ koy wax waaye duñ ko wax ci wolof ci arab lañ koy wax bu ko defee arab maa u mooy ndox ci ñoom biir mooy teen daar mooy kër jaar mooy dëkkaale bu ko defee ñu adapté ko ci ispézorat di wax maawu biiri daari jaari jarina ahla mi maay biiri daari jaari jarikum wala waaw ما هو بيري دار جارنا أحلى مما يبيري دار جاركم ولا ما هو بيري دار جاركم أحلى مما يبيري دار جارنا حل لولو dañ ko وخ بجي الحاج عبد العزيز دبا مومنتم Aziz نجي ب ديكو appliqué ci mbaal yi ñoo nappe booba nit ñi dañ daan àbbante mbaal mais xuloo bi dafa bare parce que danga àbb mbaalu jàmbur te doo ko dellu mu nekk coow walla nga àbb ko ba noppi di ko delloo mu ni yéex na nga tooñ ko ci ni ko sa mbaam mbaal mi baaxul mu appliqué ca bayt يا صيدا في شبكي وسابحا في بركي لا تحقرن كيك كيف كيك كيك كيك, كيك. mag ñi lu ne lañu xam moo tax bu xale yi tëb daf laa reeloo waaw dafa fekk mag ñi gënoon tey nag ñoo gënoon tey wax dëgg yàlla nangu wuñu lu vulgaire euh, lu ne dañ koy yiwal waaw lu ne dañ koy yiwal ba ci wàññi yi leen di tari alxuraan di wàññi ñoo ko fi indi waaw booba gàmmu fii ci Tiwaawan mook làmba yam waaw waaw dinañu gàmm ba gàmm ga jeex te nit ñi duñu dem ci jumaa ja tuutee fay dem kàng yi rekk lañuy topp ca gaar ba bëcc boulevard kenn ku nekk kàng ba nga faral mu mel ni mbëru làmp dañuy takku ñi jóge Saalum ñi jóge Kajoor ñi jóge Bawol ñi jóge fu ne ku ne am sa kàng man kàng bi ma amoon mujj na di ma jàngal alquran mu di Ousseynou Sall ku man alquran te man waññi waaye ñoom ñépp sëriñ Moussa waaw waaw bu sëñ Babacar Si daan na commencé ci min wi balaa fajar rek kamil bi jeex te daf koy booleeg waññi tubarkal la tubarkal pour wax la ni jàmbaar lañu waaw jàmbaar lañu nag boroom li mu defal yonent bi bokk na ci maamam yépp kenn ku ci nekk mën nga fanaan ci mbiram ba set kenn ku ci nekk waaye terewul it gis nga fi mu ko jaarale ci wàllu fitna ci wàllu lu nekk te it mag ñépp dañ ci summil chapeau imam Bousiri ndax ñoom ñépp jàpp nañ ni burdatul madix du kese-kese ruuxul qudus dugg na ci li ciy bëréw mooy jéem na ko defaat ba tàyyi mënu ko ñi ci desit roy nañ ko ci ba tàyyi kenn mënu ko wante ni ñu ko soppe ndax yonent bi noonu la ko yenn jullit bañe ndax yonent bi lu mu dajul ci kaw suuf amul moom muy am Busiri xam nga amoon na ñaari jàngoro benn jàngoro bi xamul sax lu mu doon ci biir mettit walla wéye burdatul ma dee yàlla saafara ko loolu am na ñu ci bind téere saaga ko te jullit li euh, cheikh sama turandoo dafa yërëm Busiri ba moo tax mu def irshadaat dafa ko ñaanal ba dangaa jaaxle ndax ba léegi bërki démb laa jot téere bu ñu def ci moom saaga ko te ay état ñooy génne xaalis di ko neexle pour loolu lu tax parce ca cosaan seen famille daf daan wujjante ak famille yu yonent bi te li imam Busiri wax yonent bi nag ëpp na ñu ni nag duñ ko bàyyi ba ba àddunay tukki ku des ci ñoom rekk loo am ci alal di ko joxe pour ñu bind saaga Busiri pour wax la nii ku noppalu ya noppalu waaw waaye goru yàlla yi kenn du ci noppalu mënul ne waaw moom itam ku soxoroon la nag bu xasee fayu benn yoon yàqu nga ba faw waaw noonu la meloon boole kook fayda jaag ñàkk fayda ja boole kook fayda jaag ñàkk fayda ja ndax fayda bu jurul ñàkk fayda des na waaw fayda bu jurul ñàkk fayda booba des na moo tax ña ko daan xëllamtoo bu solee jubbaam ba agsi ci seen wet daldi summi jubba ba lal ko toog ca du àbb sax toogukaay am ci ku koy tooñ ni ko kisaa un am bisaab ni ko kisaa am bisaab mu ni ko kisaab mu ne ko kisaab loolu la ñuy tuddee naxt waaw moom la ñuy naxt ci seen bayaan euh, cosaanam nag mooy sculpture hmm. mooy sculpture ne ne sculpteur di di yeewoo ba defar ba dugalante ba yépp baax am na ñu ko man ci bind waaw am na ñoo xam ni seen mbind sculpture la waaw te moom ca la bokk banaatul wahma wa banaatul xeyaal سرين بابا كرسي موكو خن رضي الله تعالى عنه لأن يعني كي من اللخو أك كي من خل لأن يعني كوشي نحك ما جامبور نغا عمي تمو يال كي بندوي كي ديف ميزيك كي ديف سكولتور كي ديف بنتور كي ديف ñom ñépp bu fekkee dafa dellu ci yàlla banaatul xeyal la bu fekkee dafa dellu ci seytaane banaatul wahma la فلربما سمت الحقيقة بامتطاء خيالي ما وهم باخل dafa mel ni nag ñoo xaw bokk añ waaw xam nga ruuxu taqdiir may la mooy lu ne nga xam foo caa yem may la boo waxee sa soxla ba noppi bàyyil nit ñi ñu wax ba ba ngaa soxlaati kooku mooy ruuxu taqdir waaye bu dee ku wax nga wax àdduna tukki ذلك تقدير العزيز العليم روح التعادل موديل تي ميزان ميزان ميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بمستوى الكائنات ألا تضعوا في الميزان بمستوى المعاملات وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بمستوى الاقتصاديات هاشم عمرو العلا لتود هاشم موي كوي يوين النم دي كو جوخ كو كو سخل دم نتي با لو خمني دفا عجو جي كونتيناي دم نتي با يالا مي خمني بوكري ووكو مو كوكو بوكري جي القرآن ndax bañ mu niru eh, jëfandiku tey dëgg la sax sunu boroom wax na ci alquran ni ki loru seetul ki nëbb ak ki feeñal moom na ca jot rekk waaye ne ki nëbb moo ma gënal boobu la Hachim jël comme daraja fexe ba muy daraja ki soxla te bañ di daraja ki ko dimbale ca soxla sa liggéey ko itam ba yàlla indi image ba ci suuratu Quraysh moo tax mag ñi daan ko bindal seen doom yi def commerce ñu di ko def ci seen buntu boutique bu ñu dee génn réew itam ñu bindal leen ko ñoom gëm nañ ko te gëm mooy maye gëm nañ ko te gëm mooy may xam nga li imam Busiri waxoon ni jamono gi ñëw bu nga xam ni dafa reeloo nit ñu ne ko lu tax mu ne jamono la bu nga xam ni danga gis ku écrasé ngëm ba noppi tabax jàkk ca wet ga lu fa jàkk jaa ki écrasé ngëm ba noppi tabax jàkk ca wet ca lu fa jàkka jaa def sëriñ Babacar si dafa am ay njabootam yu xuloo ci jàkk ndeysaan ci yërmandeem mu dem seet وخلنا وخو وخو وخ بدا في نسوتين نقل فجوغي نيو دالو جمير ما مجل حاج منصور سي يبل مدام سيت لين وخاك نيوم وخاك نيوم وخاك نيوم متى جاك ci mujj feebaram mu ni ma ñu bàyyi leen xel ma ne ko baax na waaye problème bi ma jëkk regle réglé gannaawam boobu la ma dem fa ñu di ma jaay fiq te fiq du ko réglé xel rekk ko réglé ñu ni ma dañ ko natt te jubluwul penku man leen jàkk cheikh jubluwul penku su ma turandoo jàkkam mooy na penku waaye ñi cay julli duñu mooy penku man leen lu lu lu yomb dégg la ma ne xamuleen ni mimbar mën na féete sow ndax yàlla waxul ak mimbar nit ki la wax dafa fekk nag ci kamaaliyaat yi la bokk ci kamaaliyaat yi la bokk boo respecté jàkka fokk mimbar ba nga féetale ko penku waaye mën nga ko bañ féetale penku te te yow mi fay julli nga julli féet féet sa kanam jëm penku lu woyof la te noonu lañ ko déggee it tabarkalla tabarkalla juboo ca mu mel na ci wàllu xel Hachim àggoon na fu nga xam ni li ñoo tuddee sécurité moo ko jëkk yi teewoo ba yàlla fekk ko ci falyaabudu rabba haadal bayt الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف نانغول وون كين جام كين جامك نانغول وون كين دوغال كين جامك نانغول وون كين نانغو يفي جامبور جامك نيكو دوندالي نجي لورو يتيلي نون لاكو sécurité nit ñi yitteele woon ba yàlla rus ko ci mu juddu ndam yépp musiba amatul foofa mu mel ni sécurité am na solo waaw euh, Abu Dharr أبو ذر الغفاري nee na xéewal yépp ñàkk sécurité mën na ko yàq nee na man dama nekkoon chef de bande di dogale nit ñi di jël seen alal nee na ba benn bés ñi ma dogale ay perantal a ngi ci ñuy nàmp a ngi ci nee na ma rey ñépp nee ma dem tëdd jëm-jëm nelaw mu dëma mel na liir yi dañoo jooy ci sama nopp dana ma jóg bu jekk yee sama rakk yee sama yaay nu daw wuti fu nu jëm ndax boobu dëkk ba yépp ci loolu la ñuy waaye nee na lu gën a met walla lu gën a metti rey liir ne amul nee ma daw nee di daw ñu topp guddi gi di daw ba àgg mag waaw nee ma làqu nee na façon bu nekk dana ko def bu guddee ba dem ci wetu kaaba gi xawma ma lu may jàng xaw ma lu may wax waaye daal danaa dem toog foofa mettit lu li ma def ndax ba tey baatu liir yaa ngi ci sama nopp bi jib nee na balaa fajar ma daw ci ruq nekkoon nee na rakk jee ko lii metti na dencee sàkk pexe mu ni ko ban pexe am koy xanaa yàlla rayoon ma rekk moo gën ba rakk ji dégg turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko am na kuñ fee wax de mu ni ko kan la mu ni ko ku wax Muhammad ñu ngi wax ci moom yu bare yu baax teen ca dem mu ni ko ay ca ba ñu ñëwee dafa gis yonent bi rekk tuub ci moom mu boole ko ak Sayyiduna Abu Bakr mu ni waaw mu ni Sayyiduna Abu Bakr naka lay def ba jot liir yi ma rey mu ni ko nga ñibbi sa dëkk mu ne ko kon ñu ray ma mu ne ko mukk yonent bi nangu na tuub li ngay def mooy bakkan boo sa rey fexeel ba dugal bakkan bu ni toll ci lislam mu ni ko yonent bi dana garanti sa dund ba ba koy def mu fabu dellu dëkkam waaye mujj na dëkk ba yépp mu wanga leen indi leen ci yonent bi pour jote ko liir yamu rekk pour wax la ni lépp ci yàlla la dellu hmm?